jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision future Média xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk bi ci gën a fës juróom-ñetti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan fukk ak ñett am ay gaañu gaañu ba ñu rawale leen ca hôpital bu euh, Kaolack loolee nag mooy bilan accident euh, hélicoptère bi nga xamante ne ni moom moo am ca Missira hélicoptère boobee nag muy bu l'armée bi ñu daal di koy mandargale kon MI 17 boobee hélicoptère nag ñuy wax ni ca Ziguinchor la jóge woon ab mission. mission nag la demoon foofee appareil boobee nag sax nee nañ ma nga doon sax wut tegu nu mu gën a gaawee gannaaw nag ba ñu nemmeekoo ni kon am na ca loo xamante ne kon jaarul yoon misira googe sax daañu fa yegg ndax accident ba nuñ ko waxee foofe la amee taskan wa nag sax def nañu seen ként lay kattan ndax ñoom bokk nañu ca ña njëkk nag taxaw ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo loru kon ca boobe uh, roplaan ci fàttali hélicoptère ba tamit uh, ma nga daal rek kon kon lañuy wax sax fukk ak juróom ña ñoom nag njabootu ko Robert Sagna la euh, foofee ca Sigicoor askan wa tamit demoon nañu rek ñu ca bari rawatina ak kilifa yi ngir nag dem seeti ji ki nga xamante ni moom mooy Robert Sagna moom moom nga xamante ne nag jamono jii may wax ak yéen nag euh, kon ma nga ceew tiis Sénégal nag ñu ne bari na euh, yu ni mel di am nii lu ci mel ni roplaan yuy faral nag di daanu ay doomu aadama di ci ñàkk seen bakkan mbokki ponk baa ngi nii yaatal gi léegi léegi. Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko waxee woon benn ponk kese la muy nag euh, hélicoptère boobee nga xamante ne nag moo daal di daanu euh, ca euh, Missirah ba nag lu toll kon ci fukk ak ñett ci doomu dama jëlee ci ay gaañu gaañu juróom-ñett nag ñoo daal di kon ñàkk seen bakkan ca boobeep accident ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ca gaañu ña leen raware rek ca hôpital bu Kaolack foofe nag ñu gis ni daal li nga xamante ne nag kon moom moo fa xew doon na loo xamante nag lu lu tiis la ndax niñ ko waxee ñooñee nag euh, ña daal di jëlee ay gaañu gaañu kon ca boobee accident ñu rawale leen euh, ci hôpital ba yëfee nag ma nga xew kon euh, ci boori 4 heures du matin directeur hôpital régional bu Kaolack nag di Saliou taal moom yëkkati na ay kàddu dénk ko Ibrahima Diamé ñu teewlu ko. ñu ngi recevoir fii jot nañ fii fukk ak ñaar ti ay blessé yoo xamante ni am na si ñett yoo xamante ni ay blessé grave lañu malheureusement jot nañ si aussi lu mat juróom-ñetti juróom-ñaari seet sur place euh, kenn kii bi mu egsee la la gaañu malheureusement mais li ñuy wax ni mooy euh, blessé yi en tout cas ils ont été bien conditionnés et amenés au niveau de l'hôpital bi ñuy fii tamit euh, fekk na ñun suñu dispositif déjà mettre nañ ko en place pour xaar blessé yi ñu ñëw et tout le corps médical s'est mobilisé et paramédicales pour jël leen en charge correctement et nous saluons aussi euh, ñi si ñeneen ñi jàppee maanaam tey vraiment parce que on a senti ñëpp ñëw ñëwandoo euh, comme un seul homme donc on a vu le SAMU national on a vu les le groupement national de sapeurs pompiers on a vu l'armée donc ñëpp ñëw jàpp si ak euh, les services hospitaliers pour mën a assurer la prise en charge de ces de ces blessés là et aujourd'hui ils sont tous stabilisés pour être maintenant réévacués sur l'hôpital mu ngoog ñu ko waxee kon ñu bari ca ñooñe nag euh, daal di jëlee gaañu gaañu ca boobu accident ñu ngi leen rawale fii ci hôpital euh, principal bu Ndakaaru foofee la ñuy des euh, ca diwaanu Kaolack ak ni ñu ko xamee muy nag ñooñee am ay gaañu gaañu ca boobu accident ñu rawale leen ca hôpital boobe Ibrahima Diame daanaka daal dinay fekkee kon lu baree bari ca ba ñuy rawale rek ñooñee jële ci ay gaañu gaañu Ibrahima Diame mu ngi ci bu mu jokkoo bi Ibrahima Diame nuyu Euh, jërëjëf Fatou Kiné Deme maa ngi lay fay bu baax baax. ma ngoog euh, Ibrahima Diame ak ñooñu nga xamante ne nag ñoom ñooy blessé yi ñu tudd euh, ci accident boobee fukk ak ñeent la ñu wax ndax Ibrahima Diame mën nga ñu wax rek fu ñu toll ak ñooñu. oui donc euh, Fatou euh, Kiné dem mu doonoon nag guddi bu métti métti lool sax ndax ànd ak ak euh, naqar li ko dale kon vingt deux heures ba quatre heures du matin ñu ngi woon ci hôpital régional bu Kaolack ngir xool rek déroulement évacuation blessé yooyu le lu mot kon fukki ambulance daanaka mobilisé nañ leen ci pour wàllu si ñooñu lay jëlee kon ay gaañu gaañu <coughs> excusez-moi ci hélicoptère ci accident d'hélicoptère boobu le au total kon fukk ak ñaari blessé lañ dalaloon xamante ni moom mooy hôpital régional bu Kaolack mu bokkoon ci nag suñu benn naataango di lu Philippe Sagna bu RTS mais moom nag euh, ay jafe-jafe la amoon ci tànk bi waaye nag yàqalu ko mu ràññee ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon euh, ñoom ñoo ko doon kon jël en charge ñun ñi sax jot nañu wax ak moom euh, ci tànk ndeyjoor bi kon la amoon ay gaañu gaañu waaye nag li ñu mën a jàpp Fatou Kiné moo di hôpital régional bu Kaolack def nañ liggéey bu rëy a nga xamante jël nañ nañ en charge carrément ni mu waree kon ñooñu demee ñu gaañu ci l'accident le waaye nag euh, ci euh, bi euh, quatre heures du matin di laate jot nag ci la ñu def li ñu waroon def ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee woon ay gaañu gaañu ñu évacuer leen fi nga xam ne moom mooy hôpital principal bu Ndakaaru waaye laata loolu fàttali ne am na ku nga xamante ne ci blessé yooyu le jotoon na ci ñàkk bakkanam li moo def nag ñi ci ñàkk seen bakkan mot nañ juróom ñetti doomu aadama donc yu nekkoon ci eh, hélicoptère boobule donc fi mu toll nii eh, koor yi rek ñoo fi des waaye ñëpp ñi nga xamante ni amee nañ ci ay gaañu gaañu rawale nañ leen fi nga xam ne moom mooy hôpital régional hôpital principal bu Ndakaaru Euh, ñu koy jaajëfal bu baax euh, Ibrahima Diame euh, hélicoptère boobee nag kon demoon yóbbu ji néew fële ca Ziguinchor mu nekk nag rakk ci robeex Sagna foofee sax ca diwaanu Ziguinchor foofu it askan wa ña nga caw tiis ak ni ñu ko xamee ndax fukk ak juróom ca ñooñee nekkoon kon ca hélicoptère boobee njabootuk Robert Sagna la ay kilifa ba ci nag askan wa yeew foofu ñu bari kon wutale woon nañu fa nga xamante ni moom mooy kër Robert Sagna ñuy naqarlu nag loolee bu baax a baax moom moomee euh, di Robert Sagna tey ji am na lool euh, lu ko metti dañ ci ànd ak Boubacar Dia si Lamine Madian ci caméra bi. gannaaw bi ñu déggee jéeya ji ñoom ñëpp a daw kër Robert Sagna ci guddi gi ndax mënuñu xaar bët set muy Fiacre Coly di président conseil départemental Ramatoulaye Diatta di député au conseiller Yankouba Coly Pascal Ehemba président chambre de commerce. gouverneur bu Ziguinchor Guèye Diouf ba ci secrétaire exécutif sécurité alimentaire moom mii naroon bokk ci tukki bi ak soxnaam waaye ak Robert Sagna mii toog. ñun ñëpp ñoo ñoo fa waroon nekk sama goro sama jabar dañu waroon dellu finalement puisque nit ñi dañu bëri woon euh, ñi ñëwoon jaale si ñu ne nañu xaar ñun ba suba ñu soog a dem ndaxte dañu ñëw euh, suul suñu tonton euh, ba pare ñu ne ma ñu dellu nga xam ne ci famille bi lañu bokk lii am. dama ko weddi mais au fil du temps ñu wax. nekk ci njàqare. la seule chose qu'on peut dire c'est déplorer ce Je suis, complètement atterré devant cette catastrophe. Je ne peux pas la qualifier autrement. Et on est venu pour euh, un décès, on repart et la catastrophe se produit. j'ai pas de qualificatif. Tous, euh, c'est des parents, d'une manière ou d'une autre, soit directement proches, ou en tout cas, soit cousins, soit tantes, soit neveux, soit. Euh, tous, c'est des parents. hélicoptère armée bi dafa yebbu woon ci Ziguinchor néewu Jacob Sagna nekk rakk ci Robert Sagna Euh, Boubacar euh, Diassi euh, bu dee nag mu ngi ci buumu jokko bi kon ñu daal di rek des ak moom ni ñu ko gisee robeex Sagna am lu ko metti lool ndax ñu baree bari nag ci njabootam la ñu bokk demoon fafee fee ca Sigicoor doon nag teewee ji kon ca ba ñuy denc rakkam ci bi ñu ñibbisi nag ci la accident boobee daal di am Boubacar Diassi nuyu naa la Boubacar Diassi Boubacar mangook ngoog euh, Boubacar Diassi bu dee mi ngi ci ma ngoog kon mi ngi ci bu mu jokkoo bi Boubacar Diassi nuyu naa la. Fatou fay naa la. Euh, euh, bokk nga ci ñi nga xamante ne kon tiis wi fekkee nañu ko fa fee ca Sigicoor nga xamante ne nag ñoom fa la ñu bàyyi ko woon di ñëw ba gannaaw bi nag mbir moomee mujj am nan lañu ñu yeewoo waa diwaanu Sigicoor ak li nga xamante ni nii am na muy lu metti lool ci waxtu yu néew rek ay doomu aadama yu bari ñàkk seen bakkan. wax nga dëgg farci ne euh, yàlla dafa dogal ñun bu ñu koy bokk nañ si ñu ko njëkk a dégg ñun bu ñu ko déggee rek dañu ne bërëb daw kër euh, ki nga xamante ne moom mooy le ministre Robert Sagna ñu fekk ko ci condition yi nga xamante euh, gis ngeen image mais bu ñu yeewootee ci suba nag jigéen soor comme dafa xaw dafa nekk dëkk bi nga xamante ne suñu mboroom moo dogal mu miin ay ay métit ndax ay nattu la yi nga xam ne suñu borom koy dafa koy teg muy ville de dëkk bi nga xamante ne dafa depuis quatre vingt deux ba mu ngi ci ci métit donc fa nekk moo gën a moom mooy événement le plus partagé fii ci Ziguinchor euh, mais si la ñu euh, profité ci dal boobu nag ñu dem fi nga xamante ne moom mooy euh, donc brin brin bi nga xamante moom la Robert Sagna bàyyi ko ak rakkab bi nga xamante ne moom lañ hélicoptère bi indi woon fii ci Ziguinchor ngir ñu mun koo rob donc bu muy dellu fi inspecteur Robert Sagna muy nanguñ jaal ñi ak bi nga xamante ñi nga xam ñoom ñoo ay mbokkam ñu ràññi ci nag ay jigéen ñu bari mais nag xam nga ku ti ku tiis le vraiment ñi ñu gis ko sa kanam fu mu nekk nii pour nga wax nit la Diagne mi nga xamante comme ni ñu koy faral di waxee homme d'état la euh, ñëpp ko moom nangu na euh, wax ak journaliste yi ñu taataan ci moom euh, donc information yi nga xamante ne nee ne moom comme ni ñu ko waxee ci ni ñu ko waxee ci ñu élément bi dafa war a bokk moom si avion bi nga xamante ci hélicoptère bi moo dem Dakar yàlla tax ñoom ñu façonné ni toog comme ça moom mu xëy si fii beneen bi nga xamante mu ngi si dix kilomètres de Ziguinchor à l'ouest de Ziguinchor ci yoonu Cap Skirring mu mun si xëy si fii ñëw jël roletana nee ne nag bu bu bu jëyee ji amee euh, ki ko njëkk woo mooy le chef de l'état Macky Sall ndaxte si boppam moom moo taxaw bu euh, euh, bu mu amee dëj moom moo taxaw jox instruction ki nga xamante ne moom mooy le ministre de de des forces armées ngir ñu mun hélicoptère bi ci disposition famille bi loolu moo tax hélicoptère bi bàyyi ko Dakar ñëw fii ci Ziguinchor mais bu ko woowee mu wuyu ko mu ne ko alhamdulilah kon ndekete bokkoo si nga xamante ne dañ ñoo bàyyi ko Ziguinchor ñëw ñëw wut si Dakar kon Robert Sagna comme ni ma ko waxee mu ngi nangu njaal ñi fii ci interview nag nee nañu Euh, moom euh, donc ñàkk na ci ñi nga xamante ne moom mooy ñaari beau frère am euh, ñàkk na ñàkk na ci nga xamante aussi moom mooy benn benn cousin maanaam yaayam ak papa kooku ñoo bokk ndey ak baay bokk na ci nag ñi nga xamante ne aussi ñi ñoo ñoo faatu bokk na ci nga xam ne mooy jarbaatam nee na it ak benn mbokkom bi nga xam ne mbokk mbokk mbokk mu jigéen la nee na mu ngi ñaan sénégalais yi ñoom ñëpp ñu dallu ci seen i borom ndaxte moom it dal na vraiment si boromam dina xam ni suñ borom moo ko moo ñu dënk moo ko dénk dénk famille bi bi nga xamante ñoom ñoom ñoom la woowaat euh, kon. jokkoowaat ak yow ci suñu yeneen jotaayu euh, xibaar euh, Missirah ci fàttali foofe nag fa la accident ba amee Missirah nekk ca diwaanu Fatick Aminata Goudiaby mi ngi ci buumu jokkoo bi Aminata Goudiaby maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou dem ma ngoog Aminata Goudiaby euh, ni ko ñëpp xamee muy nag accident bu euh, metti boobee tiis lool ñu bari ñàkk ca seen bakkan Aminata bi ñi ngi doon xaar jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk forces armées ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ndax yegsi nañu jamono ji. waa egg seeguñu ba léegi nii Fatou Kiné waaye ba fi fii may wax ak yow léegi nii ça fait même pas cinq minutes maa ngi doon wax ak nit ki nga xam ni moom moo yam ci accident boobu nappkat ab euh, pêcheur la boo xam ni mi ngi cosaanoo ci réewu Mali moom nag nee na ci ay timis bi mu jógee bi mu nappee bay ñibbisi nak la yam ci mbir mi ci la doon ci la demee ba foofu nag jéem a xool waaye dafa fekkoon euh, mbir mi euh, hélicoptère bi daanu na waaye amul woon fenn fu mu mën a duggee ci la woowee askanu misira yëpp ñu génn dem foofu dajji xool fu ñu dajji ci hélicoptère bi rek ba mën a génn sauver nit ñi waaye moom mi ngi xam le ne état bi nga xam ni ci la fekk euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon passager yi métti na trop ndaxte nee na ay blessures yu métti métti la leen fekkee ba tax na sax nit ñi ñoo leen doon boot di leen génne di leen yóbbu ngir ñu mën a dem ci gaal yi ndax umple woo leen ni hélicoptère boobu ci biir mangrove bi la daanu foofee nag accident bi amee Fatou Kiné fi mu ne nii police yeeg gendarme yi bu baax a baax civil yi amuñu fa noonu accès te yi ci gi laataa dara di xew nañ ba xool li nga xam ne moom la fa mbiri tëddee boo gisee nag hélicoptère boobu nga xam ne marque MI 17 la li nga xam ne accident bi métti na trop ndaxte appareil bi fi mu ne nii dafa wengee benn côté ci biir ndox mi ba ca des féete ca kaw loolu nag benn euh, responsable ci gendarme yi di ñu xamal ne mënuñu wax ne avion bi dafa tasaaroo waaye nag naam dafa daanu mënuñu wax ne dafa tasaaroo ndaxte lépp tasul foofu nag boo fa duggee di nga gis ni kérosène bi tuuroo ci biir ndox mi te foo toll mu mu lay xeeñ li nga xam ne nag ñoo di ay dam nit ci hélicoptère bi tam ñu ngi koy gis lu bëri ci foofe nga xam ne ci parc delta du Saloum bi la bokk li des ci avion ba ci hélicoptère boobee nag Fatou Kiné boo fa demee eh, di nga gis eh, bagage yi nga xam ni moom la fa victime yi bàyyi mu bokk ci ay yére ay dàll ak itam sax saabu ay eh, tache de tache deret itam ñu ngi ko fay ci kaw chaise yi trace boobu nag buñ sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci Missirah nee nañ démb ci ngoon gi la am ci bi vingt heures tuuti hélico bi dafa def ay rotation yu bëri laata euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi bañ doon laajte lam la laata ñu leen koy wax ca saasa la ñu dem foofu bëri fa ba bëggee dee wax naa ko doon jàppale nit ñi bilan bi umple woo leen ni juróom-ñetti nit la yu ñàkk seen bakkan fukki nit ak ñaar am ci ay gaañu gaañu ñu évacué leen évacué leen woon ca bu hôpital principal bu Dakar ñu ñuy wax ne nag ci kenn ci mm, mangoog Aminata mm-hmm. Mm-hmm. balaa ñuy tàggatoo ndax am na kenn koo xamante ni euh, jege na la foofu euh, xëy na ku mën a wax wolof euh, mu mën a dellusiwaat tuuti rek ci li nga xamante ni nii askan wa taxawee nañu ko wax nga junj nga ko sànq ci biir muy lu am solo askan wi tamit wax dëgg neex yàlla def nañu taxawaay bu am solo Mhm. Ah, malheureusement ki nga xam ne nag moom la ñu am nii ci suñu wet moom déggul olof soose rek la dégg ak bambara bi ñu koy jël sax dafa am ku ko doon traduiral waaye moom firndeel na ni population bi ñoom ñoo njëkk a génn mhm. jàppale victime yooyu laata euh, sapeur pompier ak itam ñeneen ñi di ñëw ngir génne leen foofu ci euh, géej gi Aminata Goudiaby ñu lay euh, jaajëfal bu euh, baax a baax euh, Aminata bi ñu ngi koy sant gërëm ko du ñàkk kon ñu amaat ko moom Aminata bi xëy na ci suñu leen jotaay xibaar rek mu gën ñu toppal mbir moomee ñu des ba tey ci wàllug accident yi ñeel roplaan yi fii ci Sénégal seetlu gi nag duguleet mu am ca Missira li ko jiitu am na ci ay roplaan yoo xamante ni kon accident am nañu accident fii ci Sénégal ay hélicoptère ñu gis ni nag ay doomu aadama yu bari nañu seen bakkan euh, ci yooyee euh, accident Chérif Dia moo ci dikk ak ñun. crash di accident hélicoptère MI-17 bu armée sénégalaise daanu fële ca Missira ñëw na rek yokk ci list jëye yi nga xamante ni yàgg nañoo am ci jaww ji fii ci Sénégal ci ñaar fukki at yi ñu génn. yin ci gën a ràññeeku bokk na ci bi amoon fukki fan ci weeru février ci atum 1992 boobu benn avion bu Club Med moom moo daanu ca Cap Skirring lu toll fanweeri doomu aadama ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ci ëpp nag ay touristes français lan juróomi at ginnaaw loolu benn fan ci weeru février ci atum 1997 avion daal di daanooti muy avion Air Sénégal fële ci Tambacounda ginnaaw rek fanweeri seconde bi mu décollé ñaar fukk ak ñetti doomu adama ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ci ñooñu nag bokk na ci fukk ak juróom-ñetti doomu français wante tamit benn doomu Suisse ak benn doomu Italie ak ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon dawal roppalaan bi. bu mooyee nag daanub hélicoptère bu armée sénégalaise fële ca Missira euh, accident bin ci gën a mujj fàttaliku moom mooy bi amoon rek ci juróomi fan ci weeru septembre ci atum 2015 boobu nag avion Sénégal Air la moom nag ab équipe médicale la yaboon maanaam koo xamante ni dafa feebar ak i médecin avion ba dafa fenqaloo ak beneen avion bu Guinée équatoriale ñu koy wax compagnie Saiba Air juróom-ñaari doomu aadama daal di ci ñàkk seen bakkan ci weeru août ci atum 2017 ci la bureau d' enquête d' analyse daal di def seen rapport li ñu xamle mooy avion ba niveau bi mu doon naawee daal waru ko woon a naawee. ba tax na ci jéye ji maanaam daanub hélicoptère bu armée Sénégal fële ca Missirah njiitu réew mi daal di sàkku rek ouverture enquête indépendante ngir ñu xam lu ko waral. Euh, daañu del si ci mandarga roplaan boobee waxoon nañu ko léegi MI 17 la euh, ñu ne nag euh, roplaan la boo xamante ne hélicoptère la boo xamante ne sax may jéggalu kon bokk na ci hélicoptère de transport yi bu l'armée bi loole nag lañu nemmeeku bu ñu ko xoolee sax ci àdduna nee nañ nag dugguleet nag yooyee nag kon xeeti appareil ñu di ko defar ndax doon na loo xamante ne kon yàgg nañu koo defar ci àdduna waaye tamit nekk na loo xamante ne dugguleet tamit ñuy wax kon tey euh, roplaan bi ñu mandargalee MI-17 kon def na ko euh, ci euh, àdduna bi waaye tamit roplaan nekk na loo xamante ni kon hélicoptère boo xamante ne nii buñ ko dee xool tey mën nañ koo jàppee ni kon ci wàllug yorin week yépp lu yomb la Alassane Ba moo dikk ak ñun ci màndarga boobee di MI-17. démb bi nekk ab guddi bu jaxasoo ab jëya hélicoptère bu l'armée bi bu type MI-17 bi ñu immatriculé t a bi jóge woon ñibbi si fii ci Ndakaaru moo daanu ñu xeetu hélicoptère googu nekk na bi nga xamante ni gën nañ ko defar ci àdduna bi mu di Mi di set Mi nekk ab hélicoptère bu transport bu lourd mu bàyyeekoo nag ci Mi 8 yomb ji mu yomb te nekk itam bi nga xamante ni mën na fonctionner ci diir bu yàgg ak itam gaaw a adapté wu ci conditions yi ci mel ni désert wala bokk ay montagnes yu kawe nekk na li war a tax ba ku ne war ko am mu di Mi 17 boo xoolee ñaari moteur la am mu di ay turbomoteur boo xoolee itam gaawaayam toll na ci ñaar ak juróom jàpp ñaar téeméer ak juróom fukk kilomètre ci waxtu bu ne équipage bi toll ci ñaari pilote ak benn ingénieur de vol dugguleet nag ñuy wax crash jëm ci Mi 17 ci adduna bi boo xoolee ci Inde am na fa ca Irak itam naka noonu lii waral jéye yooyu ba léegi duñ ci am lu leex ay supposition rek ñi di wax ay erreur de pilotage ay météo ay panne mécanique wala xeet yi ni mel hélicoptère bu démb bi nag bu l'armée bi Mi-17 bi daanu ca Missirah ba tax juróom-ñetti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan fukk ak ñett jële ci gaañu gaañu ñu ne balaa moo daanu def na ay rotation yu bëri nekkoon na itam hélicoptère bu yóbbu bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar kii di njiit bu woon maître Abdoulaye Wade fële ci Touba ci màggal bi mujj lan moo waral nag mu daanu niki démb kenn xamagu ko ay interprétation rek la ñuy joxe l'enquête ubbi nañ ko wante nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ministre mi yor forces armées maître Augustin Tine appareil bi baaxoon na niñ ko yore woon itam baaxoon na. ma ngoog eh, ci fàttali juróom-ñetti doomu ñoo ñàkk seen bakkan ca hélicoptère boobee fukk ak ñett eh, jëleet ay eh, gaañu gaañu xamaguñu nag kon dëgg-dëgg ñooñee nag ñàkk seen bakkan seen tur mbaa seen sant fi mu ne nii nag kon askan wi joteeguñu ci xanaa rek seen njaboot yu sës ci ñoom rëkk ñu daal di àddu ci leneen ci biir xibaar yi muy askan wa yeewoo ca Zac Mbao ñoom nag meroon nañu lool li ko waral dafa am nag ay promoteur yoo xamante ne nee nañ dañoo bëgg saax loolee di seen espace de jeu muy nag fa nga xamante ne nag fa la askan wa wala bokk xale ya mën di fowe loolee nag lañ ne duñu ko seetaan mu ñu amaloon nag am ndaje mu yaatu ci wàllu woowee di sàkku rek ci ñooñu nga xamante ne nag ñoom ñoo bëgg a def nag su noonu ne ñoom noppi nañu ngir defante kook ñoom ñu lu ci naar faal moom ma wax ci seen tur ci micro Salif Sow gis nga terrain bi xale yi fu bale benn rek la fi amut ci sac bépp te ZAC bii am réew la amuñu terrain de football bii lañ fi bàyyi pour xale yi e et loolu nu ni la ku naan Cheikh Ahmed Tidiane ñaa kii lañ ko jox ci titre ci sous titre bi naan 21 750 loolu ñoo ngi ko établir en 2014 bu récent yàggul dara nu ni ci plan d' aménagement bi bi confirmé ni fii terrain football la 2005 la nu la la la kayit ah. kon mu wan la doole xëy na la bëgg jaay waa Zac de Mbao parce que nun duñu wax dara duñu yëngal ah. yàlla xam na ko ak yont bi nii ce terrain là restera un terrain de football. il y a déjà le collège qui est proximité il y élémentaire mais lu tax du mën a am moo tax ma ne Cheikh Tidiane Ndiaye am yoon boo ko defee da ngay askan wi te teggin zone d'aménagement concerté lañu wax mais yàlla seede na ni rien n'est concerté dans cette ZAC kenn di waxtaanu ci lenn Euh, ñu yegg ba Kayar foofee nag lu soxal kon lotissement yu ñu fa doon tudd euh, ca Kayar te ay conseillers départementaux euh, doon ko wax nag mu mel ni loolee ma ngay wéy di jur coor loolu nag tax na ba ñu amal ab pétition di sàkku rek kon ay xaatim lu toll ci ñeen fukk ci ay conseillers ñoom nag ñoo daal di kon tàmbali lu ni mel ñu ne nag loole faaw ñu waxtaanee ko ci ab session extraordinaire ngir nag ñu daal di mën a tas nee ñu bureau bu conseil départemental bu Thiès Cheikh Anta Diop Seylatir di mbir moo xamante ne noppeeguñ di ci wax ginnaaw génn bu mujj bi Yankhoba Diattara génnoon joxoñ baaraam tuuma njiitu commission aménagement bu territoire ci suuf si nga xamante ne nee nañ dañ ko doon def ay lotissement fële te Kayaar te teguwul ci yoon ci fan yi néew de daañu amal benn session extraordinaire ngir ñu daaneel bureau conseil départemental bu Thiès. ñu ni leen woon ci njalbeen dinañ ko yëgal bépp population bu ko war yëgal ko bépp conseil bu ko war a xam buñ ci weesoo dinañu woote li ñuy wax session extraordinaire ndaxte conseil bi lu muy lijjantee ay mbiram ci conseil ci session rek la ko mën a defee. di nag lu njëkk ci histoire conseil départementaux yi nekk ci réew mi. conseil yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Abdoulaye Sow nee ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars bi lañu ñu ko jàpp. ñu bëgg ñu woote benn session extraordinaire boo xamante ni mooy njëkk am ci département Sénégal yépp ngir ñu lijjanti njombe googu ñu gis ci biir domaine public maritime bi. te ñun ci lu ñu mooy ña nekk ci bureau conseil bi seen loxo setu ci parce que dañ leen fekk ñoom ñoo yoroon mbir mi. ñu jàpp ne ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février bi ñu génn ay conseils yi nekk ci conseil départemental bu Thiès amaloon nañ ab tukkib nemmeeku euh, fële ci kayaar doon xool nag ay opération terrassement ak ay lotissement yoo xamante ne nee nañ dañoo joxoñ baaraamab tuuma ne Idriss Seck ak i ñoñom ñoom ñoo koy def. Euh, ci jamono ji ñuy waxee nag xeex euh, fipp yi fii ci Sénégal wala bokk xeex alal ju leewul kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb gouvernement yi taxaw temm ngir nag xeex euh, weexal xaalis gi ci Afrique saw jant ñoom nag jàpp nañ ni kon Sénégal mooy réew mu njëkk ci Afrique francophone bi gën a taxaw ngir xeex li nga xamante ni moom mooy wàllug terrorisme waaye tamit xeex ak alal ju lewul ak mbaa bokk alal ju ñuy weexal fii ci Sénégal loolu nag moom mooy seetlu di kuréel gi nag ne moom la mu bëgg rek mooy fexe nag ba xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex ci wàllu terrorisme ak weexal xaalis bi ah, ci Afrique ñu gën koo dooleel am na nag ab lël boo xamante ne amaloon nañu ko ci wàllu woowee Abdourahmane Diallo. Sénégal bokk na ci élèves yu gën ci Afrique de l'Ouest ci lu jëm ci wàllum xeex terrorisme ak blanchiment d'argent bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent bu Afrique de l'Ouest. Non seulement le Sénégal Sénégal adopté na ay normes yi nga xam ni ko ko fi teg te tamit tëral nañu ay jumtuwaay yi nga xam ni dafay xeex li ni mel looloo tax sax ma jàpp ni Sénégal royuwaay la te seeni xarañteef ci mbir moomu noonu war na doon mbir mi nga xam ni daf ñuy amal njëriñ ba yeneen i réew yi mën a topp ci tànk yooyu. des normes du LBC-FT. ci rapport GIABA bu atum 2015 bi nag Sénégal bokkoon na tamit ci réew yi nga xam ni nit ñi dañ leen di fitnaal wala teg leen coono li ko waral nag bare woon na waaye bu ñu sukkandikoo ci waa CENTIF fi mu ne nii kilifa yi ñu ngi xeex li ni mel. mais nag aussi eh, ni mu amee moo tax eh, gouvernement bi xar tànku tuwaayam fexe ba nga xam ne lu ñu ci mën a def eh, ci politique de détection et de recherche ak daan ñi nga xam ne ñoo nekk di def loolu ñu ngi koy def ñun niveau de la CENTIF récemment rek wax naa ko sànq ci tubaab am na benn étude bu ñu commandité pour xam euh, risques yi nga xam ne moo nekk ci blanchiment d'argent ak financement terrorisme te buy jóge ci traite des personnes. groupe intergouvernemental d'action bu jëm ci wàllum xeex blanchiment d'argent ci Afrique de l'Ouest dafa doon organiser ci mercredi bi ab atelier bi nga xam ne dafa jëm ci anam bi ñuy xayma nguur yi waaye tamit nu ñuy tëralee rapport yi. njiital bokk gis-gis moom nag jàpp na ni géej ga kon na muy àndu see fële ca diwaanu Saint-Louis ak Ganjul loole nag jaaduwul benn yoon ndax askan wa ñu ngay nag gën di sonn saa su ne ba tax na nag mu demoon nemmeeku moom Pape Diop fa ñu naan dak dak googee na nga xamante ne sax am na ab jàkka ju fa newoon te géej ga mujj gaa nangu ci ñaari fan yi la muy sàkku nag ci nguuru Sénégal mooy na yokk mën-mëni ngir xeex loole bu baax a baax Ousseynou Diop Ayib Seck. njiitu sàkku jëm ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ni askanu Gendar ak Gandiol am nañ ko ginnaaw géej gi ba mu duggee seeni kër yi yàq ci lu bare mu dem ca dàkk jumaa jëf fa nekkoon géej gi daal koy daaneel ci ñaari fan yi ñu génn foofee nag askan wi njàqare lañu am. mi ngi na amatuñu fépp fu ñu jullee te Gendar ku ne xam ni diine rek la ñu xam jàkka yi néew nañu néew nañu ndax fii ñetti koñ ñeenti koñ benn jàkka fi am daanaka bu ndee julli mbedd mi la ñuy jullee ndax xañu si jàkka yi. Pape Diop xam le ni ñaboot gi nga xamante ni gis na ko ñoom ñëpp dañu tiit jaaxle te état bi daf leen war a taxawu. at ñett yu nekk ñu ni génn Ndar géej gi lekk na ay kër mais bu bu yàggee sax génn Ndar yëpp ay jeex euh, liñ ma woon fële ci gànjool nga xam ni foofu wax dëgg yàlla nekk na loo xam ni lu doy waar la mais am naa yaakaar ni président Macky Sall ak ñi mu àndal war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. njiital bokk gis-gis àndaloon ak membre yu bari yoo xamante ni ci opposition bi la ci Ndar Géej ak Gànjool xam leen ni chef de l'État dafa war a baral liggéey bi ndaxte liggéey yi nga xamante ni moom lañ fa war a amal dafa war a doon liggéey yu gaaw. parce que léegi am na technique yu moderne yoo xam ni ingénieurs yi euh, ak urbanistes yi ak environnementalistes yi. turee nañ ko ci système boo xam ni mën nañ ci protéger géej gi ba du dal ci nit ñi loolu nag moo amul waaye maa ngi yaakaar ni ñi nga xam ne ñoo yor réew mi dinañ ci def lu ñu mën. njiital bokk gis-gis adduwaat ci leneen jëm ci wàllu licence de pêche yi xam ne na ni réewu Sénégal ak Mauritanie dañu wara a baral liggéey bi ndaxte jamono jile fi ñu toll ñi nga xamante ñooy nappkat yi dañu sonn moom nag dàq na nappkat yi di teeree foofee ci njaago. jaajëfal ko Seynou Diop ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jëyee ji fanaanoo moom la yéene kaay yeewoo hélicoptère armée Sénégal bu daanu démb l'observateur tax nañu ca misira la daanu démb ay huit ci guddi juróom-ñaari nit ñoo ca faatu fukk ak ne ci ay gaañu-gaañu hélicoptère bi 1000 MI 171 E matricule 6 WHTA hélicoptère bi ca Berenga ca Sigicoor la jóge woon ab néew la fa yóbbu woon ñeent ña ci ba la bokk ña des di fukk ak juróom benn ay passagers la ci xibaar yi journal Fatick yi ko dab ci kaw jaww ji ak ña ko doon dawal ak wooteeg gi ñu doon woote lépp l'observateur leeral nañu ko ci saa si journal bi wa am na fukki nit ak ñett yu ca jëlee gaañu ñu juróom-ñaari nit ñoo ca faatu benn frère Robert Sagna bu faatu ab néewam la hélicoptère bi yóbbu ci siggi Dior ba muy dellu si ca la daanu li ko daane les éco nañu xamaguñu ko li ñu xam daal moo di huit ci guddi bi muy teg fanweeri minute ak ñeent maanaam ci la waa ASECNA noppee gis hélicoptère bi juróom benn yi ay góor lañu kenn ka jigéen la Robert Sagna las nañu yàlla baax nekkoon tey jii kenn waxatu ko ndax ci hélicoptère ba la naroon a dugg keneen ku ca nekkoon te yàlla def mu mucc ca la Sénégal nañu moo di journaliste RTS bii di Louis bi crash bi amee ci jëlee ci jamono ji l'observateur les échos ak las di waxee juróom-ñaari nit yu faatu ci jëye jë yeneen yéene kaay ñoom juróom-benn nit yu faatu la ñu gis ñi ko gis bokk na ci le témoin quotidien soleil national enquête source a direct info libération sud quotidien vox populi ak tribune ñoom nee nañu hélicoptère bi daanu démb ca misira ga ca Toubacouta juróom-benn ñoo ca faatu fukk ak ñeent jële ci ay gaañu gaañu le quotidien nañu misère ca misira bu daanu vox populi nañu njiit réew mi Macky Sall bu mu ko yëgee gannaaw ba mu jaale askanu Sénégal bu nuppi santaane na nu mu gën gaawe ñu taxawal ab commission d'enquête ngir leeral li daaneel hélicoptère bi la cloche dañu fa yëfee xew mu di ca Missira ñoo nga fay séntu Augustin Tine ministre forces armées ak ministre de la santé Abdoulaye Diouf Karim Wade ci Sud Quotidien li état bu Sénégal doon sàkku ca cour d'appel bu pare ngir ñu teg loxo teranga maanaam bien yi nga xam ne Karim Wade am na ko ca Paris la France journal bi nee nañu cour d'appel bu Paris na ci kanamu Karim Wade témoigne nañu cour d'appel bu Paris débouté na état bu Sénégal las nañu état Sénégal booyo boobu mu defaruwaat gën a jaajuwaat ndax ginnaaw ñàkk gi mu ñàkk diggam Karim Wade ca Paris dese na ko beneen xeex mu di xeex bu mu war a lijjanti diggam ak Khalifa loolee ca Bamako ga ca Mali fa la war a amee La Tribune gis ne Karim Wade ak ndam li mu am ci kaw bu Sénégal mooy jaawale wutali présidentielle yi Russie équipe nationale bu Sénégal football ñoo koy bàyyi xel journal record xëy dalal Alfred Gomis di kenn ci góolu équipe nationale jaar-jaaram Alfred dem ci sax bay xamle ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne daa war def kemtalaay kàttanam ngir mérite place am nit maasam daanaka ci yile kàddu la ñu mën a tënkee kàddu yi Aziz Ndiaye yëkkati ci xët mu njëkk sunu lamb combat triple S doomi Double Less mu di Balla gay 2 ak le Tigre de Fass Gris Bordeaux Aziz Ndiaye joxe na ca xalaatam nee na ñoom mu di gaañi fa rek Balla Gaye 2 dañoo bëgg a daan Gris Bordeaux ci anam wu rafet ndax Balla gay 2 du moroomu Gris Bordeaux Balla est mille fois supérieur à jaajëfal ko Mamadou Mabène Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen.